ñu ñëw tuuti nag ci ak fàttali ci juróomi fan ci mois de septembre ci atum 1895 di bis boo xam ne ni ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag julli woon na ko ci bureau gouverneur bu Ndar ginnaaw bu ko autorité coloniale yi soxlaa woon ngir nag mu wuy si leen ci dëkk boobu nag di Ndar Géej ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim yónni woon ay ndaw ngir nag ñu wuy jiil ko nasaraan bi ci lan nag la ko nasaraan bi doye nag ci woo gim ko woo ginnaaw ba ndaw ya demee muy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru ak doon wax sëriñ Demba Kebe nasaraan bi nag mi ngi doon mag ñooñu nag di leen wax ne yéen soxla wu ma leen ka leen yónni nag moom laa soxla woon ginnaaw bu maam Cerno Ibrahima Faati ndaamal daaru ñibbisee ci Mbàkke Baari Jolof ak sëriñ Mademba Kebe nag mi mu àndaloon Seexul Xadim nag ginnaaw bu gouverneur bi yónni waatee laneen ndaw di ko xamal ne ndaw yim leen yabaloon kat ñoom soxla wuñ ko moom lañ soxla Seexul Xadim nag àndoon nag ndaw loola waaj nag ngir wuy ji nasaraan bi nag ci dëkk boobu nag di nda géej ndaw li autorité coloniale yi yónni woon nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof te Seexul Xadim nekkoon nag waxanteeg seexul xadim di ko wax ne nag nasaraan bi moom moo la soxla ci dëkk bee mu nekk nag di ndar géej seexul xadim nag waxtaanoon nag maam Cheikh mi Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir ñu defaral ko ay bagaasam ngir nag mu ñëw wuy nag nasaraan bi ci lan la koy doyee bis bi nga xam ne ñu ci la seexul xadim jógee nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof moo tombe woon nag bisub samedi fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi samedi fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon 1895 samedi 10 août 1895 ci fajaruk samedi googu nag la seexul xadim bàyyi ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolof ànd ak nag ñenn itim nag ci ay taalibeem ànd ak itim nag ndaw li nga xam ne nii moom la gouverneur bi yónni na ngir mu jël si ko muy maam abduloo ginnaaw bu ñu jógee mbàkke baari jolof nag ñi ngi dem nag ci dëkk bii nag di jeewal ci dëkk boobu itam nag la ñu yendu ci dëkk boobu itam nag la ñu fanaan ginnaaw jeewal ci fukki fan ci mois de août ci atum 1895 bët set di dimanche di fukki fan ak Europe ci atum 1895 Seexul Xaddim nag bàyyi koo jeewal ngir fas yéenee dem nag ndar géej mi ngi jaar kokki nag fanaan ji lugaloo ci guddik dimanche googu nag di fukki fan ak benn ci mois d'août ci atum 1895 ba set di altene mu yendu nag ci dëkk boobu nag di lugaloo ci gaar bi ba ci takkusaanuk altene ji di fukki fan ak ñaar ci mois d'août ci atum 1895 saxaar gi nga xam ne nii moo jóge woon ndakaaru nag ngir fas yéenee dem nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ginnaaw nag bu mu tolloo nag ci dëkk boobu nag di lugaloo la gaare nag ci bi ñu jële seexul xaddim nag foofu mu nekkoon dugal ko nag ci saxaar gi ngir fas yéene koo yit nag gouverneur bi nga xam ne ni moom moo ko soxla nag ci ndar géej kon seexul xaddim nag mi ngi egg nag ci dëkk boobu nag di ndar géej bisub altene ñaar fukki fan ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy lundi 12 a 1895 lundi 12 août 1895 ci timis googu nag la seexul xaddim egg ndar géej ginnaaw bu mu eggee nag nag di ndar géej tubaab bi itam nag doon na sàkku nag ci seexul xaddim ngir nag di ko laaj nag fan nag la bëgg a nekk nag ci dëkk bi nag di ndar géej ba keroog ñu koy soxla lii di bi itam nag waxoon na seexul xaddim nag place yu takkoo takkoo takkoo takku na wax nag ban moo ko ca seexul xaddim taamoo nag fi nga xam ne nii moom moo ko gënaloon nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag ba noppi tubaab bi itam nag bàyyi woon na seexul xaddim itam nag mu dem foofa nekk fa waaye nag ci diggante boobu nag seexul xaddim taamoo fi nga xam ne nii moom moo ko gënaloon nag laataa nag tubaab bi nag di ko ci bërëb yooyu yóbbuwaat ko nag ci yeneen i bërëb ngir nag wàllu sécurité ak kaaraange gi nga xam ne nii nag lenn ci mag ñi ak ñi nga xam ne nii déggoon nañ ne jàpp nañ doomu soxna jaara bi ñëw itam nag di ko seet si seet si googu ñu ko doon seet si nag mbooloo mi nag ni doon baree nag ci bërëb yi nga xam ne nii nag dencoon nañ fa seexul xaddiim jaaxaloon na autorité coloniale yi ba taxoon na itam nag léeg-léeg itam nag ñu déplacé seexul xaddiim nag ci bërëb yi ko doon denc bërëb yi nga xam ne nii nag jaar na fa nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag ñu mën caa ràññee quartier bi ñuy wax soor ci kër Ahmed Khouray Sène nekkoon ab interprète nekkoon ne tim nag naarub gànnaar foofu itim nag la seexul xaddim njëkk a nekk ci ndigal loo xam ne nii nag moom taamuloon na ko boppam nag ci kilifa yi nga xam ne itim nag tubaab bi sàkk woon na itim nag bu fekkee ne seexul xaddim bëgg na faa nekk mu nekk fa kon kër amet xuray seen nekkoon ab entreprête nekkoon itim nag naarub gànnaar ci dëkk boobu nag di ndar géej kër amet xuray seen gii nag léegi nag bërëb boobu nag ab école élémentaire la ñu gën koo xam ci école élémentaire xayaar mbeng moom la jamono ji nag ci ndar géej la tax itam nag tubaab bi jële woon ko nag ci bërëb boobu manque nag de sécurité la ndax mbooloo mu bari mi nga xam ne nii nag doon nañ fa fekk nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul te tubaab bi itam nag loolu dalul woon xelam ñaareelu bërëb bi nga xam ne nii nag yóbbu nañ fa ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul nag ci diir bi nga xam ne nii nag nekk na ko ndar mooy fi banque de bi nekk ci ndar géej nekk foofu nag am na ñenn nag ci boroom xam yi ñu wax ne lenn ci colon yi di yi nga xam ne nii ñoom ñoo yoroon nag jamono jooju jooju nag état bi foofu nag lañ dëkkoon am na ñu ne déedéet foofu kay kër gouverneur bi la woon waaye daal li wér te wér daal mooy seexul xaddiim nag nekkoon na ci bërëb boobu nag banque de sang di gën rëy ci ndar nekk foofu itam nag am magasin moo fa newoon ci kër googu daanañ fa denc itam nag seexul xaddiim waaye la nga xam ne nii moom moo ko fa jëlee lii di ka fa nekkoon soxnaam nag am médecin la woon doon na waxtaan ak boroom këram nag di ko xamal ne kii ñu la jox nag di ko tëj nag ci magasin bi jaaduwul ndax ñun ñii nag di yëngutu nag ci wàllu médecine xam nañ ne tëj doomu aadama du dox du yëngutu loolu daal baaxul dara nag ci wàllu wér gi yaram deret jëm yor nag dafa war nag di dox ci yaram wi soo ko tëjee benn place nag deret ji nag du dox te loolu itam nag mën na koo indil nag ak wéradi ginnaaw bu jabaru médecin bi nag xamalee loolu nag médecin bi autorité coloniale yi itam nag déggoon nañ ko léeg-léeg itam nag daanañ ko bàyyi nag muy xëy nag di doxantu ndax itam nag la leen médecin ba wax nag ñu mën koo respecté saa buñ ko masaa xëy nag di ko bàyyi nag muy doxantu fu mu ëppoon nag lim daa toog nag ci ndar nag ci jamono jooju muy foofu nag banque boobu nekk nag di banque boobu nag la

nag ci tribunal waaye tribunal bi nga xam ne nii nag moom la administration nag bi fi nekkoon taxawaloon muy conseil privé boobu ci lañ ko attee ci teewaayu nag juróom-ñetti kilifa yi tubaab juróom-ñetti kilifa yi fekkee atte bi bisub keroog mooy ku ñuy wax monsieur muté moom moo nekkoon président ndaje ba nekkoon itim nag gouverneur bi nga xam ne nii moom moo remplacé gouverneur bi fi nekkoon ñaareelu doomu aadama nag bu fekkee atte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax Ersan Gili moom moo nekkoon commissaire des colonies chef du service administratif ñetteelu doomu aadama bu fekkee atte ba mooy ku ñuy wax Boye moom na colonel la woon di commandant supérieur des troupes par intérim ñeenteelu doomu aadama bu fekke àtte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax jorket jorket mi nag directeur de l'intérieur la woon par intérim juróomeelu doomu aadama nag bu fekke àtte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax monsieur le clerc médecin principal la woon chef du service de santé juróom benneelu doomu aadama nag bu fekke àtte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax monsieur orgaret lieutenant de vaisseau la woon délégué du commissaire de la marine juróom ñaareelu doomu aadama nag bu fekke àtte ba bisub keroog mooy monsieur bes spécial conseiller privé titulaire juróom-ñetteelu doomu aadama nag bu fekkee àtte ba mooy ku ñu doon wax monsieur Lumbeen conseil privé suppléant la woon superville secrétariat architecte juróom-ñetti doomu aadama yii nag ci ay tubaab nag ñoo fekkee àtte ba ak ñoom seeni garde ak Duudu Sekk benn Maxtaar mi nga xam ne nii nag moom moo doon tekki nag kàdduy seexul xadim yi ci tubaab di tekki itam na kàdduy tubaab yi itam nag ci wolof ngir seexul xadim mën a wax ak nag nasaraan bi ak moom nag ku baax ki tey nag ñu fekkee nag aate bi ngir xam itam nag lan la ñuy tuumaal seexul xaddiim muy saal boo xam ne nii nag ña cay dugg nag du bari dañ koy tëj après ci diirub atte bi atte bi nag mi nga amoon bisu alxemis fukki fan ak juróom ci weeru gàmm ci atum ci gàddaay gi alxemis fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy jeudi 5 septembre 1895 jeudi 5 septembre 1895 muy diir bi seexul xaddiim jógee mbakke baari jolof ba ni ñu koy attee mu toll ci ñaar fukki fan ak juróom yoo xam ne nii am na ko nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ca bëccëgu ñaar fukkeelu fan ba ak juróom lañ ko àtte mu tombé woon nag septembre ginnaaw buñu àttee nag seexul xaddiim ba ña fekke àtte ba di wax ne daal seexul xaddiim dañ ko war a jële nag ci réew mi nag di Sénégal yóbbu ko itam nag ci réew mu ñuy wax Congo française liñ koy toppee itam nag bokk na ci taxawal mbooloo nag te amu ci sañ-sañ ginnaaw buñ ko yóbboo nag a fukki ati yàlla ñun ñooy continuer nag di ko yor nag ci dëkk bii nag di ndar géej ba keroog nag mu fii bàyyi koo waaye nag dana bàyyi koo nag ci dëkk bii nag di ndar ci bisu fukki fan ak juróom nag weeru septembre muy fukki ak ñett nag ci kanam mu dëppook àllarba 18 septembre 1895 su boobaa nag la fi bàyyi koo nag dem ndakaaru su demee ndakaaru itam nag ci suñuy loxo nag lay nekk ba keroog itam nag bato boobu ko fi war a jële ngir yóbbu ko nag ci Congo francaise di ñëw guddi tey gii nag ñi ngi koy fanaanal nag ci cellule bi nga xam ne nii moom moo nekk nag nag ci gouvernance bi ci le 6 septembre ñi ngi koy yóbbu nag ci camp militaire bi nga xam ne ni moom moo nekk nag ci Roña Nord ngir mu wéy nag nekk foofa nag ba le 18 septembre foofu itam nag lañ ko boole woon nag gaynde gi laataa mu fay jógee gisoon na fa itam nag ku ñuy wax maa béy njaay doon ko xamal ne sama tukki bi nag seede nga ciy nekk danaa dem danaa dikk te dang ma seede laataa seexul xadim nag di jóge ndar ngir dem nag ndakaaru def na nag ndar géej weer ak fukki fan ak la ñeent ginnaaw buñ ko jëlee nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag lañ ko yóbbu ndakaaru ndakaaru itam nag ñetti fan nag la fa cheikhul dem nag ci réew mi nag di Congo française ginnaaw bu mu nekkee nag ci réew moom nag di Congo française ñu gën koo xam nag ci Gabon jamono ji ma fa jógee itam nag ci réew moomu ci le 20 ci atum 1902 ñibbisiwaat nag ci réew mii nag di Sénégal bari na itim nag fu mu fi jaaraan moom Seexul Xaddiim ndax yóbbuwaan nañ ko fi gànnaar ginnaaw gànnaar itim nag dem na fi ca yéen jolof ginnaaw ca yéen jolof itam nag nekk na fi njaareem ba tax na itam nag ci njaareem googu itam nag la génnee àdduna ci bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juillet ci atum 1927 ñu indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba dëkk boobu itam nag di ndar géej nag ay doomam nag wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di ndar géej yoonu Seexul di màgg ginnaaw bu doomu ndar yi nag wéyee nag di màgg yoonu Seexul Xaddiim yi itam nag dëgg bari na itim nag ci dëkk boobu nag di ndar géej itim nag ñu fa mujj nekk nag ay murit jaayanteeg nag njabootuk seexul xaddiim gi murit yooyu nekk ndar géej nag ñu mujj nag taxawal nag bis nag buñ jagleel seexul xaddiim ngir nag di ko fàttaliku nag ci ñu tudde ak màggal ñu jàpp ko nag juróomi fan nag ci weeru septembre di bis bi nga xam ne nii nag ca la seexul xaddiim nag jullee woon ci seen bureau gouverneur boobu da ci fàttaliku jaar-jaar boobu nga xam ne nii nag seexul xaddiim nag def na ko nag ci dëkk boobu nag di ndar ak julli googu nga xam ne itim nag julli na ko xam ne nag lislaam rek moom mooy na nag lenn itam nag ci doomu ndar yi jort na itam nag ni seexul xaddim nag di amee bis fu ne ñoom itam nag war nañ koo wutal bis nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ndax def yëpp wala jaar na fa itam nag comme ni mu jaare nag ci dëkk yëpp te def na itam nag ci ndar loo xam ne ni itam nag lislaam du ko fàtte ba mukk ndax jaloore la muy julli nag ci bureau gouverneur màggal googu sax di ñaar rakkay ndar yi nag ñu wax leen nag lan moo tax nag waa ndar géej nag di ko màggal ginnaaw nag bi mu amee nag benn association nag ci dëkk boobu nag di ndar géej di ñoo xam ne nag ay géwal lañ saa na itam nag daanañ toog nag benn place nag di waxtaan ci lépp loo xam ne ni nag dana jëmale nag seen dëkk boobu nag di ndër géej kanam ci jataay yooyu nag ñu daa amal nag ci la amee benn bis nag ñuy waxtaan doon xamalante nag ci seen biir lan moo tax nag ci dëkk bi nag di géej nag mënuñu fee nag benn bis boo xam ne nii nag waa ndar nag danañ xam ne nag lii nag seen bis la ginnaaw nag bu kàddu googu nag jógee nag ca mbooloo ma kenn ku nekk nag gis-gis bi nga xam ne nii nag amoon nga ko nag keroog nag ca jataay ba am na ñoo xam ne nii nag jortoon nañ ne wut bis boo xam ne nii daal bisub sabaru la lu ko gën nag ci ndar géej nag amul am na ñeneen itam nag ñu bokkoon ca jataay jotaay ba ñu foog ne daal wut bisub làmb wala daal di lu ko gën itim nag ci ndar géej amul am na ñeneen itim nag ñu nekkoon ca jotaay ba loo xam ne ni daal jort nañ ne buñ ko defee nag ci ndar géej googu itim nag doon wax nag ma paali seen nekkoon artiste di yëngu nag ci wàllu peintre moom moo xalaat ne waa bis bii nga xam ne nii nag ci la seexul xaddim julli woon nag ñaari raaka yi nag ci dëkk bii nag di ndar géej ca est-ce que ëppul solo nag lii lépp nag ñuy xalaata tey ñoo jël bis boobu nag di ko màggal ngir itim nag di ci fàttaliku seexul xaddim ndax gis nañ ne kat ci biir réew mi wala ci dëkk yu baree bari kenn ku ne kat yaa ngi wut nag bis boo xam ne nii kat ci la seexul xaddim defee dara te ñun nag am nañ bis boo xam ne nii tim ci la seexul xaddim jullee woon ci bureau gouverneur bi est-ce que buñ jëloon bis boobu nag du baax xalaat yépp itim nag mujjoon nañ nag dëppoo nag ci xalaatu ma paali seen boobu nag nekkoon artiste peintre doon ko wax ne nag wax nga dëgg monte de lii lépp nag ñu bëgg a def nag ci ndar géej màggal ñaari rakkay seexul xaddim yi daal lu ko ëpp farate amul te buñ ko defee nag kenn duñu mën a ŋànk ci wax na itam nag nañ gën a nag ay waxtaan xool nag naka la ñuy bis boobu ku ñuy wax nag Abdou Khadre Sène moom itam nag ca jataay ba itam nag la bokkoon ginnaaw bu ñu amalee ay réunion ba noppi nag ba juboo nag ci bis boobu nag di ñaari rakay ndar yi moom moo demoon nag seeti woon nag ku ñuy wax nag ma dikke wàdd doon ko xamal ne ñun kat ginnaaw bu ñu dajee nag ba noppi dañoo xalaatoon nag bis bi nga xam ne nii Seexul Xadim ñëwoon na ko ndar géej nag julli fi nag ci bureau gouverneur daal bis boobu nag ko a jël nag ko jëmmal di ko màggal waaye nag côté organisation nag yow yaa ñu ci ëpp xel ne wàllu organisation moom ku ci xarañ nga dañoo bëggoon daal nga ñëw nag di ñu xelal wala nga ñëw daal jàppale ñu ci suñu bis boobu ma dikkawaat nag mi ngi leen doon xamal mu jiite ko na a ko defee nag kenn ci mbooloo mi nag di ko fakkastal buñ ko bàyyee xelam daal li nga xam ne ni moom mooy organisation bi daal dana leen ko mën a defal daal ba mucc ayib ginnaaw bu sëñ Abdou Xaadir Seen nag ñëwee waxalaat ko mbooloo mi di leen wax ne daal gisoon naa ma dikke wàdd doon ko xamal ne daal suñu bis bii ñu bëgg a taxawal bu ñu sañoon daal mu ñëw fa nag bokk say itam nag di ñu xelal ma di ko wàdd nag nangu na waaye nag dafa am ay sart yoo xam ne ni itam nag teg na ko mi ngi xamal mbooloo mi daal ne bis buñ ko nangoo jiital te bàyyi ko daal mu dem ak xelam mën naa ñëw daal jiite ko waaye lu dul loolu nag moom du man yooyu mbooloo mi nag àndoon na ñoo nag ma di ko wàdd nag ci bëgg-bëggam boobu fekk si ko itim jox ko mbooloo mi nag mu jiite ko ngir ñu amal nag bisum ñaari ràkka yooyu nag ci dëkk boobu a organiser yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo ko xalaatoon ci 1976 itim événement waaye bi ci njëkk am itam nag ci lañ ko amal waaye nag bis bi itam nag sabab bi mooy ñaari raaka yi amaluñ ko nag ci bisub 5 septembre gi ñu ci njëkk amal nag ci mois de juin ñaareelu gi amoon nag ci 1977 ko amal nag ci mois de septembre doon nañ fexe nag at mu jot ñu amal nag lii di xew-xew bi te nañ ko jàppe daal ca weer wañ taamu ca at mooma noonu itam nag ni lañ ko wéel ba ci atum événement bi itam ñu ngi ko daa amalee jumaa ji gën a rëy nag ci ndar fi mu nekk foofu itam nag fa lañ ko daa amale ginnaaw bu seen yëngu-yëngu matee nag ñu dem nag ci quartier bi ñu tudde bayaa ngir jullee fa nag tàkkusaan waaye nag musuñoo julli nag ñaari raaka yi seexul xadim julli ndax ñoom tàkkusaan lañ daa julli muy ñeenti raaka yi nii nag lañ daa organiser xew wi yëf itam nag doon na def itam nag at mu jot itam nag mu gën a màgg dem na itam nag ba lenn nag ci magi ndar jamono jooju tere woon itam nag lii di manifestation bi ndax nag ma dikke wàdd nag bi ci bokk ma dikke wàdd itam nag bañkat la woon te jubawut woon ak président bi fi nekkoon itam nag di Léopold Sédar Senghor ba tax na itam nag mu Léopold Sédar Senghor itam nag bari woon nañ ak réeroo réeroo googu itam mu amoon nag moom ma dikke wàdd tax na itam nag ma dikke wàdd bépp xew-xew boo xam ne ni itam nag ñu ngi ko cay tudd ak itam nag lu xew-xew ba lislaame lislaame lislaame nguur gi fi nekk itam nag du ko wóolu bañkat la boo xam ne nii àndul nag ak nguur tax na nag gouverneur bi nekkoon Ndar géej nag xam ne itam nag organisation ñaari ràkke yi nag biñ ko bëggee amal lii di gouverneur bi nag da koo tere woon muy manifestation boobu waaye nag ñu doon organiser événement bi muy ma dikke wàdd nag ak gaayam nag ba bi lii di ñu koy amal bisub keroog itam nag suñ borom nag moo ci def sutura ndax aw xiin wu méttee métti itam nag la amal nag ci ndar géej ca biñ demee nag ba war a jàmmaarloo muy ñii amal nag ñaari ràkka yi ak ñi nga xam ne nii kat ñoom ñooy gémi yi nga xam ne nii kat ñoom la fu gouverneur bi yabaloon ngir ñu tas manifestation yi bi ñu demee nag ba war a jàmmaarloo la xiin wa sàqi kenn ku ne nag ci ñaari camp yi yaa ngi doon xool nag noo rawalee sa bopp kon xiin woowu nag suñ boroom amaloon bisub keroog ak taw boobu mu fa amaloon moom moo waral nag ñaari camp yi nag jàmmarloo wuñ ñi doon organiser nag xam ne seexul xadim lépp loo koy woo te dëgg mu atte wala lépp loo koy woo te muy nag dàll wala laataa nag déwén sa nag lañ sol seenu dàll wax ne nag dañoo bëgg a seet si nag xalifa général des mourides nag bi fi nekkoon ngir yëgal ko nag loolu tim nag ñu bëgg taxawal nag ci ndar géej ginnaaw buñ defee délégation ñëw nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba fekk fi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ginnaaw bu ñu waxee nag seeni tànk nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba noppi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag tontuwul Serigne Modou Mamoun Niang booba nag moom moo nekk nag secrétaire permanent nag bu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom moo xamal nag délégation ndar boobu di nañ ko xew-xew itam nag képp ku koy def te di ko defal nit da koy def nag ca bis ba nga xam ne nii nag moom la ko defoon te ngeen a jël nag juróomi fan nag ci weeru septembre ngir nag di ci màggalal seexul xaddiim ci bis boobu nag la julli woon nag ñaar ràkka yi nag ci dëkk boobu nag di ndar géej te ngeen a jël bis boobu nag di ko màggal ginnaaw bu sëriñ Moodu Maamun ñang nag waxee lool nag mbooloo mi jóge woon ndar géej nag ngir doon yëgal sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad Mbàkke xew-xew boobu nag ñuy amal nag ci ndar géej ñoom itam nag àndoon nañ nag ci xalaatu sëriñ Moodu Maamun ñang bi biñ demee nag bay tàggatoo nag la leen sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad ñu wéy nag di continuer nag di màggal seenu màggal ci juróomi fan nag ci mois de septembre ci lañ xalaate na kon nag war nañ koo tudde nag ay doomu adama bu fekkee ne seexul xaddiim nag lañ koy màggalal kon nag yëf yi war nañ koo delloo njabootuk seexul xaddiim gi ci 1980 nag màggal giñ ci njëkk amal nag ngir tudde ko kenn nag ci njabootuk seexul xaddiim gi ci màggal googu itam nag lañ ko amal lu ko jiitu nag muy li ko dale nag ci 1976 ba ci 1980 tudde wuñ ko benn doomu aadama ci 1980 nag lañ ko tudde nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké mi nekkoon nag premier xalifa xaadim xaadimu rasuul ñaareelu doomu aadama nag buñ tudde bis boobu nag di ñaari rakkay ndar yi mooy cheikh mamadul faadal mbàkke mi nekkoon ñaareelu xalifa ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul muy ci 1981 ñetteelu doomu aadama nag buñ tudde bis boobu nag di ñaari rakkay ndar yi di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di rakki ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ci atu 1982 ki ci topp mooy maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina ci atu 1983 nag lañ ko tudde ñaari rakka yi ka ca topp mooy ma cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasuul ci atum 1984 nag lañ ko tudde ñaari ràkke yi ka ca topp mooy maam cheikh anta mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke di rakki ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci 1985 nag lañ ko tudde ñaari ràkke yi ka ca topp mooy cheikh masamba mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke di rakki ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum 1986 nag lañ ko tudde ñaari ràkke yi ka ca topp mooy sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ibnu cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu xaadim rasuul ci atum 1987 lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka topp mooy sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ibnu maam Mor Anta Sali Mbàkke ci atum 1988 nag lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka topp mooy Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 1989 nag lañ ko tudde ñaari ràkka yi ci atum 1990 lii di ñaari ràkka yi nag amul wala ñaari ràkka yi nag tudde wuñ ko kenn li tax nag tudde wuñ ko woon kenn ci 1990 ñaari ràkka yi nag dafa jege woon nag màggalug fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar wi di màggalug Tuubaa gi at moomu di atum dañoo bër màggal gi ci atum di màggal ga ca topp Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nekkoon ñetteelu xalifa ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul la ñu tudde màggal gi ci atum 1992 Serigne Ousmane Mbacke ibnu maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke Ndaamal Daaru ibnu maam Mor Anta Sali Mbacke la ñu tudde màggal gi ci atum 1993 Masuran Suran bokk nag ci jàmbaar yi toppoon nekkoon ci ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke def itim nag lu takkoo takku nag ci yoonu murid wi nekk itim nag doomu ndar géej la tudde màggal gi ci atum 1994 lañ tudde màggal gi sëriñ Hamsatu Jaxate nekkoon nijaayu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Soye bu Mbàkke ci atum 1995 tudde màggal gi ñeenteelu xalifa xaadim rasuul di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke ci atum 1996 lañ tudde màggal gi doomu sëriñ Touba Cheikhul doon wooye sëriñ Souhaïbou Mbacké ci atum 1997 lañ tudde màggal gi sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bokkoon itim nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul def itim nag lu takkoo takku nag ci yoonu murit ci diggante jàng ak jàngale ci lañ tudde màggal gi doomu Seexul Xaadim biñ doon wooye sëriñ Ibrahima Mbacké ci atum 1999 lañ fob màggal gi nag tudde ko Cheikh Issa Diène bokk itim nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul màggal gi nag tudde ko doomu seexul xaddim bi ñu doon wooye sëñ abdullahi mbàkke borom dër bi ci atum 2001 lañ fob màggal gi nag tudde ko jàmbaari seexul xaddim ba doomu nijaayu seexul xaddim ba sëriñ mbàkke busoo ci atum 2002 lañ fob màggal gi nag tudde ko sëriñ mëndumbe mbàkke borom déndéey bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum 2003 lañ fob maggal gi nag tudde ko sëriñ masamba jóob saam bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum lan 2004 lañ fob màggal gi nag tudde ko sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci atum 2005 lañ fob màggal gi nag tudde ko Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 2006 lañ fob màggal gi tudde ko Sëriñ Abdul Samad Mbàkke ibnu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 2007 lañ fob màggal gi nag tudde ko Sëriñ Moodu Maamun Mbàkke moom maam Cheikh Anta Mbàkke ci atum 2008 lañ fob màggal gi nag tudde ko doomu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba di Sëriñ Moodu Mustafa Mbàkke Faliilu ci atum 2000 2009 lañ fob màggal gi nag tuddee ko sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru mi nekkoon doomu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasoul ci atum 2010 lañ fob màggal gi nag tuddee ko sëriñ Mbacke Soxna Lo mi nekkoon doomu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doomu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke la ci atum 2011 lañ fob màggal gi tuddee ko sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke mi nekkoon juróomeelu xalifa sëriñ Touba Xaadim Rasoul ci atum 2012 lañ fob màggal gi tuddee ko Cheikh Mamadul Lamine Baara Mbacke moom Cheikh Mamadul Fadal Mbacke nekkoon nag juróom benneelu xalifa xaadim rasuul ci atum 2013 lañ fob màggal gi tudde ko doomu maam Cheikh Anta Mbacke biñ doon wax sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar nekkoon na itam nag ñetteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke ci atum 2014 lañ fob maggal gi tudde ko doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke biñ doon wooye sëriñ Abdoul Aziz Baara mi nekkoon ñaareelu xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara ci atum 2015 lañ fob màggal gi tudde ko sëriñ Abdoul Xafoor Mbacke mi nekkoon doomu Maam Moor Jaara Mbacke nekk itam nag doomu doomu Mamor Jaara Mbàkke bi mujjee toog toogaayam ci atum 2016 lañ fob màggal gi tudde ko sëriñ Abdul Akim Mbàkke moom ma Cheikh dul Bachir Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul li ko dale nag ci cent 1980 ak léegi ñii ñu leen tuddal nag tuddee gun màggal gi muy ñaari ràkkay ndar géej yooyu di bis bi nga xam ne nii ci la Seexul Xaadim nag jullee woon ci bureau gouverneur bi ci dëkk boobu itam nag di ndar géej ca màggal gi itam nag mbooleem doomu Seexul Xaadim yi nga xam ne nii fekke woon nañ ko daanañ ca yónnee daanañ ca dem rawatina nag cheikhul xadim bii ñuy wax cheikh murtada mbàkke moom sax lañ jagleel bés bi ba tax na itam nag at mu jot lii di bëccëgug 5 septembre julli tàkkusaan gi nga xam ne ni moom lañ fay amal cheikh murtada mbàkke nag moo ko daa jiite nag ci jiirug nekkinam ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag ci 2004 doomam sëriñ mammoor mbàkke moom itam nag moo koy jiite moo koy taxawu ànd koog itam nag mbooleem njabootuk cheikhul xadim gi ak commission googu nga xam ne nii nag ñoom ñooy organiser xaddiim siggiloon lislaam itam nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ci teewaayu autorité coloniale yi ci kër goo xam ne ni itam kenn musu faa xalaata julli ñuy ñaan ci daraja jooju seexul xaddiim taxawoon foofu ci bureau gouverneur julli fa ñaari ràkka ya yàlla na suñ borom saafara lii di jafe-jafe réew mi te guddal nag fanu xalifaam bii fi nekk te may muridi kàttan ak doole ak barke nag buñ mën a taxawoon ak bépp xew-xew nag bu ñuy fàttaliku seexul xaddiim amiin